gars ñu fas yéene ci ki donc Sadio Kaiser magnifique Mané bi nga xamné ne gars yi ah, donc yenn média yi ñoo il vit la galère au niveau des vestiaires du Bayern de Munich mais aussi rumeur yi ñu waxat encore ci jaayu Sadio Mané la indi ay leeral fas yéeneen ci jox détails yi nga xamné ne na ñu ni mo moo gu mais d'abord abord gars bu leen ko faté je concours bi poser naa question yi ci vidéo bi ma défon euh, démb ah donc ñi koy moom seetaan mu ngeen dem seetaan ko mais comme je dis ku abonné wul aussi tu peux pas gagner ku yaakaar aussi da ngay gagner nonu mu ngoog parce que l'objectif objectif permettre suñu abonné fidèles yi ñu mën see gagner donc dina am maillot pour jigéen ñi maillot pour góor ñi maillot bi nag ki ko gagné dañ ci def turam def ci numéro envoyé ko ko même boo nekkee ba tugal on va le faire parce que defoon nañ ko et aussi am na yeneen maillot yoo xam ne aussi ñi ngi koy waaje ak def ak partenariat ak yenn joueurs yi pour ñu mën aussi gars yi di mën a maillot ay maillot ñi nga bëgg xam ne également bëgg nañu accompagner ci loolu mën nañu wane euh, seen bopp ah, ñu daal di si xool ñu si liggéeyee mais aussi yi nga xam ne mooy donc maillot bi mooy maillot bi nga xam ne Atlético Madrid moom lay sol mercredi incha allah pour fêter seen 120 ans d'existence maillot bi nak nek na premier maillot boo xam ñom mom lañ soloon temps yi ba so créer sen club mom la gaay di solaat mercredi actuellement na gaay le Sénégal amatul ministre des sports parce que ki nga nak moy donc yakoba Diattara tekki na nombal tankam donc ki ne Amadou Ba mo nek gu ministre des sports euh, donc mom moy premier ministre mais en même temps ministre des sports donc football Sénégal fofu la tollu euh, jamono yi sport sax de manière générale lay wax suñu gaynde yi nak ah, suñu gaynde ndaw yi premier mi-temps bi ñu comme actuellement ñom ak Zambie gars yi dañ leen mën 3 buts à 0 dañ leen mën donc euh, on espère que tendance bi dina changer et également que voilà c'est c'est pas bon pour la confiance hein, mais on espère que voilà match va du bon mën na qui xew kii nag Lionel Messi dafa def bataaxal bi remercier gars yi ci euh, ñetti trophée yi ko jox naa ne moom meilleur buteur meilleur joueur meilleur meneur de jeu lui le Lionel Messi donc l'IFFHS, di IFFHS confiance pendant ce temps Cristiano Ronaldo photographe donc Al Nassr donc c'est toujours avec la bonne humeur il photo plutôt coéquipier donc le joueur portugais et également qui a donc Wayne actuellement le meilleur joueur au monde pour moi c'est Erling Bro et que beaucoup il est favori pour le ballon d'or donc Erling mu tëddi euh, Wayne Rooney moo ko wax ci Henry Haaland yéen nag la ngeen est-ce que vous pensez que ne aland peut être ballon d'or cette année donc je leen seen xalaat est-ce que xam ngeen ne kii di donc Pep Guardiola dix finale nationale yi mu joué manam championnat yi yi nekk de dëkk yi yi entraîné coupe coupe coupe nationale yi yëpp daf ko gagner ben rek la perte contre José Mourinho la la ko perte et c'était entre Barça et Real Madrid ki ngeen gis ni également actuellement oui l'entraîneur intérimaire de Tottenham moom moo remplacé par intérim ki nga xam ne Antonio Conte moom fi ne nag dirigeant Tottenham ñu ngi waxtaan pour gaawul beneen entraîneur mu daal di ko fay jëlee parce que fi mu ne nii daal ñoom défaite yi dafa commencé bëri si ñoom surtout défaite bi ñu am démb six buts 1 ki nga xam ne aussi nag mooy euh, Don Luis Enrique bokk na ci candidat yi moom mi nga xam ne nag dañ ko génne ci euh, favori yi foofu noonu ca Chelsea donc moom it il est candidat mais il n'est pas le seul y a aussi ki nga xam ne mooy donc Julian Nagelsmann Nagelsmann nag moom gars yi nee na pour mu ñëw dafa soxla ay garantie yu leer la soxla pour daal di ñëw Nagelsmann bi nga xam ne ne gars aussi bo leen ko déggee Paris Saint-Germain <laughs> bu len leen parce que aujourd'hui aussi Paris Saint-Germain ñi ngi liggéey ci sou pour trouver un bon entraîneur parce que dañu bëgg a ki nga xamné moy mooy Galtier parce que pour ñom Galtier gatché la ci ñom ah, donc actuellement lañu bëgg amuñu ko ki nga xamné aussi nak moy Carlo Ancelotti gars dañ ko laaj par rapport ak ki nga xamné donc Asensio mu donc Asensio joueur bu talentueux la club yu bari bëgg nañ ko ñun buñu sañoon nak mu tok ñu laaj ko aussi ndax lu tax doo waxtaan ak sa joueur yi mu ne sama joueur yi amul lu may waxtaan ak ñoom ku ma soxla dina ñëw wax ak man man tamit dinaa ko wax sama xalaat Raphaël Varane gars yi nee nañ ba ma tudd dina toog ba juróom-benn semaine six semaines yoo xam ne du ko joué ndax li nga xam ne mooy donc gaañu gaañoom euh, bi mu am donc au niveau aussi de son genou ki nga xam ne mooy donc le défenseur de Manchester United Varane moom blessure yi sonal na ko kii nag di Harry Kane Harry Kane nag actuellement Manchester United mi ngi ci kawam Bayern Munich mi ngi ci kawam Paris Saint-Germain mi ngi ci kawam donc Manchester City aussi ñoom fi mu ne nii euh, am nañ attaquant mais en tout cas Aliou Kenda daal jàppale ne ñetti club yooyu ma tudd bokk na si ñoom ñooy favori pour daal di koy recruter Wilfried Zaha moom nag euh, ñu ngi koy tudd aussi du côté de Marseille du côté de Paris du côté de euh, fi nga xam mooy donc Barça ñu ngi koy tudd club yu bëri même Bayern Munich ñu ko fay tudd Wilfried Zaha bi nga xam ne il va partir libre moo tax gars yi naan ñii soxla nañ ko même Arsenal aussi tudd nañ ko si kii aussi di Pierre-Emerick Aubameyang moom actuellement dafa bëgg a dellu ci Barça mais actuellement nag fair play financier bi moo xaw a sonal Barcelone et que ñoom aussi seen objectif numéro un mooy recruter Roquet bu fekkee ne amuñu Roquet à défaut plan B qui donc Pierre-Emerick Aubameyang qui De Lucas Hernandez ah, il va bientôt prolonger son contrat avec le Bayern jusqu'en 2027 le défenseur français Mondal Finini waxtaan ñu gën a jëm kanam pour mu daal di prolonger ba 2027 Lucas Hernandez loolu nag gars yi tax ñu waxale aussi ci xam mooy donc Ryan Gravenberch Ryan Gravenberch également moom actuellement daal gars yi nee nañ moom temps de jeu de soxla du côté du Bayern de Munich nee club yu mel ne Liverpool ñëw nañ ba waxtaan ak entourage mais Bayern moom nee nañ actuellement jour bi bëgguñu ko jaay et que Thomas Tuchel aussi il compte sur lui loolu la ñu wax léegi nag benn parenthèse bu ndaw balaa ñëw dellusiwaat ci nga xam mooy euh, daj dëpp gi euh, équipe yi nga xam ne ci Ligue 1 française donc ñoo gën a nekk équipe yoo xam ne ñoo ëpp lu ñu gagné ay points à l'extérieur Marseille moo nekk ci kanam top ci Paris Saint-Germain Monaco Clermont OGC Nice OL Lens lorsque euh, Stade de Reims à Lyon lorsque nous avons Lille hein. donc Lens aussi ci à domicile au ëpp la ñu nekk ci kaw ci Paris Saint-Germain top ci Rennes également ñoom Lille AS Monaco OM donc mu ngoog ay Lyon Stade de Reims Lorient à Montpellier gars yi Sadio Mané qui vit l'enfer donc dans les vestiaires loolu nag moo xat kookoo mu leer li nga xam ne nag mooy toujours ki doon wax ñoom Plettenberg ah play Gol, goal ñoom ñoo ko bëgg a dugal ci bopp gars yi Mercato également comme que aussi site la moom day jaay ay ay vues am lay jaay donc euh, Foot Mercato aussi ñëw di wax que Sadio Mané vit l'enfer dans les vestiaires maintenant qu'est-ce qu'il en est concrètement li nga xam ne seetlu nañ ko mooy sur le terrain l'équipe de Bayern est une équipe divisée équipe la boo xam ne amuñu esprit collectif bi ñu amoon donc on a constaté que ne depuis quelque temps gars yi dañuy bëgg di affirmer wu kii di Musiala ba ñu ko waxee ba léegi mun nga nekk star dafay jouer individuel il trop individuel mais balaa bobu ben parenthèse bu ndaw moy de ngeen media ñu naan dañu bëgg a jaay Sadio Mané ak Niabry tey kii di bi joro banu genn na loolu amul nee fi mu ne nii kaawu sax mo gëna ñak woor wóor que bu Sadio Mané mais Sadio Mané ñu ci aw xam Sadio Mané il est bien et Thomas Tuchel compte sur lui loolu la wane donc on veut lui donner le temps aussi de s'adapter parce que c'est la première année de Sadio Mané et comme je disais donc ñooñu di wax naan dañu am problème au niveau des vestiaires il n'y a pas de problème seetlu ngeen ne Sadio Mané ba mu dugalee bii bi keroog ki nga xam moy donc Kimmich mo ñëw dóor ci bobu bi ne ko voilà tu es réveillé donc bon pour l'année aujourd'hui également imaginez que le vestiaire de Sadio Mané s'entend bien maintenant il di qui Plettenberg ñoom nag du côté de Leroy Sané ils essaient de mettre Sadio Mané en mal il vit l'enfer au niveau de du il ne vit pas l'enfer le constat c'est que le Bayern de Munich sur le plan du collectif au niveau du terrain. Connaît le Guedes, Sadio ne reçoit pas beaucoup de passes. non c'est à lui aussi en tant que leader de prendre ses responsabilités, de discuter. Donc à Gaï, parce que aussi esprit d'équipe non là. Mais à part ça, en interne, il n'y a aucun problème avec Sadio Il s'entend avec tout le monde. Leroy après goût mais tous les gens apprécient Sadio au niveau du Bayern de Munich. Il faut que Mouler. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, le constat, le Bayern est divisé. Sadio Mané doit recevoir, plus de ballons. Parce qu'il y a une action qui se gagne, on passe, on passe. Mais aussi, c'est l'esprit d'équipe. Parfois, il est important que aussi prenne l'initiative, Wartan Aksenbir pour régler un problème. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de problème interne de cas de Sadio Mané. Sadio Mané n'est pas isolé. Au contraire, je vous l'avais expliqué, clan et Bayern, n'est pas des clans comme clans, mais par rapport à a beaucoup de a beaucoup de lacs. Mais à part ça aussi, ils sont pareils. Ils sont même aujourd'hui, ils ça sax di xol na comment faire pour ressouder l'équipe maintenant la brebis galeuse reste Leroy Sané bi nga xamné mom mom Sadio Mané ça va bien parce que Sadio a ko dugal coup à part ça il y a rien donc gars c'était les informations que je voulais vous donner pour éviter mo am benn quiproquo wala les gars que il n'y a rien c'était les informations que je voulais vous donner euh, qui dit donc foot mercato wax alors que cette information ñom lañ ko tirer ci Pretty Goal amul Fabrizio Romano weddi le jeu concourt également dans l'autre chaîne Baba Show day à partir d'aujourd'hui aussi tamit ñaari gagnant ak gars du rek ci ay surprise peut-être même peut-être même ah le jour ñu woo bien le jour woo defal dédicace et tout inshallah rabbi c'est des choses que nous ñu ngi koy waajal yàlla baax na gars yi di like abonner. di on avance ensemble dans la magie de eSport TV Dia ngène Djef.